أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yu tedd yi góor ak jigéen mag ak ndaw ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara yéen ñépp boole seen ànd ak di ñaan yàlla mu dolli ñu kàttan ba ñu matal weer wi ak suñu sago te mu nangul ñu ko ak mboole seen jullit ci mbaaxam ak yërmandeem sunu waxtaan tey ji mi ngi jëm ci siratul arham jokk mbokk ak ngëneel ya ca nekk mbokk nag mooy doole doomu aadama tabaarakallaahu su sa mbokk amee doole nga am ca doole su sa mbokk amee daraja nga am daraja ca darajaam su sa mbokk amee wërsëg it nga yëkk sa bopp ci wërsëg woowule kon mbokk mooy doole yàlla sant ñu jox jokk ko sàmmonteg aqu mbokk yi te di ko rafetal wattaqu allah alladi tasaaluuna bihi wal arxam inna allaha kaana aleykum raqiba sama boroom ne tiit leen ragal leen aqu yàlla subhaanahu wa taala aqu yàlla sàmmonteeg moom te ngeen ragal aqu meen bañ di ko dog dogu mbokk amul lu ko gën a garaaw diggante boo xamante ni kenn du ko tànnal boppam yàlla moo lay tànnal ban askan ngay génn ci ban giir ngay génn tabaarakallaahu ñañoor nekk sa mbokk loolu nag yow mi ko fekkewul jël sa làmmiñ ak sa paaka di ko dogot dara gënu ko garaaw sama borom nee na mi ngi ni jàkk janoo kenn ku ci nekk looy doxal sa diggante ak sa mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni inna sadaqata wa silati rahim yazidu llahu bihima fi l umri nee na saraxe ak jokk bokk yi la ñaar képp ku sàmmonteeg moom yàlla yokk say fan fegal la deegu ñaaw ba noppi dañ la fegal lépp lu bon da nga koy sore képp koo xam ni noosoo nga lu la yàlla wërsëgal baree ka si néew nga di si comp di si génne sarax te képp koo xam ni am na lu ngeen seq ci wàllu deret ci néegu ndey mbaa ci néegu baay ngeen seq ko ci meen nga di sàmmonte àqu yooyu na mu rafete su indi lu ñaaw sax yow rafetalal ne yàlla dana la suturaal insha allahu taala ci lépp lu bon yow du la dal ak deegu ñaaw yal nañu ump ump jullit mu ni inna allaha xalaqa al xalq xatta ida fariga minhum qaamat irrahim fa axadat bi xaqi rahman fa qaala mëh hada maqaamul aayif bik bi yàlla bindee meen ba noppi meen mooy waxanteeg yàlla ni ko mën a ana sama cër luy sama cër yàlla ni ko nara doy yow ku la jokk ma jokk ko ku la dog ma dog kooku le muy li yàlla wax ci alquran képp koo xamante ni yaa ngi wër di dog buum gu yàlla santaane ku ko jokk ne bisu penc ma danañu la tëxloo danañu la silmaxaloo tabaarakallaahu doo gis dara lu baax wal iyaazu billaahi ak mbugal lu tara tara tar yar nañu ump te ump jullit walladina yanquduuna ahda allahi min baadi mithaaqihi wa yaqtacuuna ma amara allah bi an yusala wa yusiduuna fi l ard ulaayika lahum laanatu llah wa lahum suu daar gaa yi nga xamante ni seen métier mooy fecc kóllëre lépp lu ñu xam ne lu baax lu yàlla nas yow bala ngay am jàmm ñàkke ko kersa dakk dakk ci digg ba nee na ñooñu de bisu pénc ma yàlla rëbb na leen te seen wàccuwaay mooy fa yées ca jahannama yal nañu ump te ump jullit yal nañu yàlla xiir ci boppam mu ni moom sallallahu alayhi wa sallam man ahabba an yubsata lahu fi risqihi wa yassa lahu fi atharihi falyasir rahimah buxaari ak muslim ko solo mu ni moom sallallahu alayhi wa sallam képp koo xamee ni bëgg nga yàlla yaatal sa wërsëg ñoddi say fan ne jokkal sa mbokk sëkkëre gudd fan daal mbokk yi ak sëkkëre yàlla di la bette wërsëg foo ko séentowul jokkal say mbokk ci biir mbokk nag ci la lépp di xewe nag yàlla neex ca lay amee yàlla naqadi ca lay amee ndax jàmbur jàmbur la tudd ana man ana yow la mais mbokk tabaarakallahu yalay metti yañu lay teg yépp ci sa biir bokk lay amee arab yi di wax naan al aqaaribu humul aqaaribu ne ñi la gën a jege ñooy jiit yi lay jam les proches sont les scorpions jiit bi lay jam nee na sa mbokk lay mën doon mais mbokk moom doo ko dagg sànni doo ko rëbb doo dogoo moom doo ko wax lu ñaaw da ngay ànd ak moom ca nu mu gën a rafete ngir yàlla jox la bi liy yiw tabaarakallaahu ñoddi say fan ak yaatal say wërsëg am na ku ñëw si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yaa rasulallah man xayru naas kan mooy ki gën si nit ñi mu ni atqaahum li rabbi ki ci gën a ragal yàlla wa awsaluhum li rahim ki ci ëpp lu muy jokki mbokk koo ko gën koo ko gën a ragal yàlla moo gën si nit ñi ki ci ëpp lu muy digle lu baax ak teer lu bon te sa soo dee mbokk mu baax daa jokk sa mbokk soo ko jokkee daa ko digal lu baax daa ko teer lu bon nañ nit ñi góorgóorlu engagé wu ci yoonu ihsaan yoonu rafetal kuy rafetal da ngay gëmm sa bët sañ sa nopp dëgg sa tànk sa yu bare nekk nit ku positif am ay onde positive lu ñu la indil ci lu xajam jóge ci sa mbokk bul ko nangu bul ko nangu nit dafay jombale boppam jombale mbokkam da ngay jombale sa bopp jombale sa mbokk lu ñu la wax ñu la sa mbokk la ko wax nga ni déedéet xam naa ne gars yi dañoo kii rek wante lii mënul nekk nga dàq loolu su ko defee da ngaa tëdd nga nelaw te soo génnee koo gis taf sa dënn ni kii sama xarit la sama sama soppe la lu ko may doo am jàmm ndax sa biiri mbokk tabaarakallahu bés bu nekk suñu indilee wax yu xajam doo nuyuti kenn doo waxante ak kenn doo jaareeti kenn doo ndokkeerati kenn kon nga xat ci biir société bi kon mbokk yi nañu nekk ay nit ñu positif di waxante suñu ay mbokk loo ca xam lu mu ñaaw ñaaw dëggal sa tànk tabaarakallaahu te gis lu rafet la rek xool yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ku ñëw ci moom ni ko yaa rasulallah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uuni wa axsinu ilayhim wa yusi'uuna ilayya wa axlumu alayhim wa yajhaluuna alayya fa qaala sallallahu alayhi wa sallam in kunta kama qulta fa ka annama tusifuhum almalla waa ji dafa ñëw ni ko yaa rasulallah man daal dama jaaxle samay mbokk dama leen di jokk ñu di ma dog lu ma xam ci lu baax wax leen lu ñu xam ci lu baax nëbb ma lu ma am ci teraanga jox leen lu ñu am ci teraanga xañ ma lu ñaaw rek lay dégg seen wàll nan lay def mun ko ndem lii nga wax dëgg la ci yow saxal ca na nga daan def sa teraanga bu mu jóg ci ñoom sa kàddu yu rafet na dem ci ñoom sa lépp na rafet sa digganteeg ñoom soo ci saxee daa mel na ko leen di saxal doomu taal bu tàng am sa teraanga sa mbokk noonoo la bañ la xas la tuumaal la dëkk la foo dëkkul tabaarakallaahu nga jël sa teraanga di ko ko jox nee na yaa ngi koy saxal doomu taal bu tàng wallahi ku yàgg sax doomu taal bu tàng dana mas xëy suba yàbbi ko la ñaawoon dina ko rafetal kon képp ku nekkoon ci société bi digaale ak doomu aadama mu di sa mbokk ngeen seq yiw seq mbaax loo ko defal mu fay la safaan bu mu tax nga bàyyi bu mu tax nga xaddi bu mu tax nga gedd saxal sa la nga nekkoon di ko wax lu baax di ko nemmeeku di ko seeti lu mu yàgg insha allahu taala dana la fekk si dëgg ndax dëgg mooy mujj yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam afdalu sadaqati ala zi rahimi lkaashih nee na gën ji sarax mooy nga sarax sa mbokk bu la noonoo nga xam ni kii yéen a bokk li ngeen bokk ëmbalu la benn yiw nga di ko dégg mu di ko wax nga di ko gis mu di la koy wan mais loo am ci lu baax jox ko loo xam si lu baax defal ko tabaarakallahu nee na loolu mooy gën ji nit te mooy gën ji sarax bul ne sama mbokk la daf may def yu sew daf may def yu ñaaw dogoon naag moom déedéet saxal ci ixsaan googu foo ko fekk nuyu ko su amee bànneex ndokkeel ko su amee tiis massawu ko soo amee teraanga yu jox na nga ko jëkk jox tabaarakallahu bar ngay séddi keneen loolu moom la sallallahu alayhi wasallam santaane nee na mooy gën ji sarax yonent bi nee na ma min dhanbin ajdar an yuajjil allahu li saxibi al uquba fi dunya al baxyi wa qatiatu rahim nee na amul benn bakkaar boo xam ni yell na ci kaka def yàlla gaawal sa mbugal fii ci kaw suuf bala ngay dem alaxira ba dab bakkaaru dog mbokk ak bew te ñaari fone fekk ñooy ànd nit dafay am wërsëg mbaa daraja mbaa taar toll si àddina ñu di ko jay di ko jay ba mu yaakaar ni moom mooy mooy mooy borom àdduna bi xeeb say mbokk dëggaate say mbokk toroxal say mbokk tabaarakallaahu ngir sa poñetu wërsëg mbaa sa taar mbaa sa daraja nee na ñooñu ñoo yelloo fii ci àdduna bala ñuy dem alaxira yàlla mbugal leen fii wal iyaazu billah ak dokkatu mbokk xam ni kii sa mbokk la doo yëkkati teg ci moom lu dul lu ñaaw ak lu bon ca na mu gën a ñaawe di fexe lu dog dogale ay tànkam ay mébétam du ko eggale ndax mbokk mais la hawla wala quwwata illa billahi al ali al azim mais société bi yëpp mbokk lañu doomu aadama lañu maam aadamaay sunu baam maam xawaay sunu maam kon ñëpp tabarakallahu ñoo bokk benn ndey beeg benn baay bi rawaate nañu nekk jullit kon rafetoo ak muñalante mbokk yi seetal nga nekk sa mbokk lu mu la noonoo noonoo bis bu ñu ko nee diw dee na moo lay jëkk jooy mooy naan jëkk massa moom lañ naan siggil ndigaale mu ni siggileen seen wàll su ñu demee sa sëg ya ana mbokk yi moom mooy ñëw gàddu jaat bi wàccale si bàmmeel kon jaroon na ko la hawla wala quwwata illa billah nit la nga nar a mujjee wallahi jëkke ko moo gën léegi-leen nag seytaane mooy ñëw indi wàllam ci biiri mbokk yi bu leen ko nangu bu leen ko seetaan képp koo xamante ni mi ngi dégg sunu baat yii sa diggante ak sa mbokk tabarakallah am lu ci xajam jógal ak esprit de grandeur dem ba ca moom ni ko ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk diina l'islam li xaju fi bal ma àq bal ma àq mooy grandeur képp ku ko mën rek wallahi nit ku tedd nga mais am nañu nag rëy dana tax mënuñu wax baal ma àq mënuñu wax ba même soo nee baal ma duñu la baal ndax rëy gu metti mais yow amal tuyaaba yàlla gis sa jëf baykaak bosam maa ngi koy ñaan sama bopp di leen ko ñaan lii mooy defar société jëkkër ak jabar bàyyi ak doom tabaarakallaahu i soppe nañu di balonte àq ngir diggante yi rafet tabaarakallaahu mbir mi gën jëm kanam yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam kii ëpp yàlla war ko jox yiwam ca saasa ca saasa immédiatement mooy ki ëpp lu muy jokk mbokk soo demee ci sa mbokk diggante yi xajam nga defar ko ci saasi bala weer wi dellu si mbaa bés bee dellu si mbaa at mee dellu si yàlla wan na li ban kontaan naa sa jëf yi teral la insha allahu taala mu ni laa yadxulu jannata qaatia yaani qaatiu rahim na la leer nag ni képp kuy dog mbokk ne du dugg àjjana te jàpp naa ni kenn ku ci nekk sa liggéey yépp sa jaamu yàlla yi sa aj màkk sa julli sa woor sa saraxe mooy yaakaar yàlla yërëm dugal àjjana yàlla nee na nag àjjana ji màkk moom maa ci dugal ku ma neex wante dokkatu mbokk duma ko dugal àjjana abu talxata radiyallahu anhu nekkoon ci biir saxaaba yi ku yàlla jox teraanga yàlla jox ko wërsëg mu am tool boo xamante ni tool bu yéeme la ñépp a fay dem di yéemu ci tool bi ak meññiteef yi ba yàlla ne ci alquran lan tanaalul birra du ngeen egg ci ragal yàlla mukk xataa tunfiqu ndaree ba jël la ngeen gën a bëgg ngeen tekk ci yoonu yàlla mu ñëw si yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ay jooy ni ko yaa rasulallah aaya bi ma dégg yëngal na ma ni ko sama tool bii ñépp di yéem def naa ko ci yoonu yàlla sarxe naa ko miskin yi munu ko yàlla nangul na la ko wante séddale ko say mbokk yontu yàlla Shuaybu alayhi salaam bi kan noonu yi ñëwee jàpp bés fas yéene ko alaksi ay mbokkam ñëw dar ko noonu yi ñëw janoog moom ni ko yow xam nga ni faalewuñu la li ngay wax neexuñu gëmuñu la wante walaw laa raxtuka la jëm nak sur konte woon sa mbokk yii danañu la sànni ba nga dee kon mbokk mooy doole nit na mbokk yi jax jaxasoog seen biir nañu darante nañu mayante doole wa taawunu ala al birri wa taqwa nañu dimbalante ci ragal yàlla ak def lu baax te bañu diggan bañu dimbalante ci noonoo ak dogante loolu amul njëriñ yal nañu yàlla xiir ci boppam nangul ñu sunu ñaan ak sunu jaamu yàlla allahuma jacal jamcana hada jamcan marxuman wa tafarruqana min bacdihi tafarruqan macsuuman ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين ñoo ngi leen di yeesalaat julli naafila bi nga xam ni yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ni guddi laylatul qadri julli na si ñaari raka raka bu ci nekk gannaaw alfaatixa nga jàng qul huwa allahu ahadun juróom-ñaari yoon boo sëlmalee wax astaghfirullah wa atuubu ilayhi juróom ñaar fukki yoon yàlla maa ngi laa jéggalu maa ngi laa tuubal julli la goo xam ni képp ku ko julli fa nga toog yàlla subhaanahu wa taala dina la jéggal sa bàkkaar jéggal sa ñaari wayjur yebal malaaka sa aljanna mu tabaxal la fa kër bu ràññeeku malaaka di la rooseel garab yi te doo génn àdduna te teguloo sa bët ci boobu lay ngëneel yàlla bu mu ump jullit moo waral saxaaba yu tedd yeeg ulama u saalixuuna yi di ko naafila ci guddi weeru koor gi yépp di ci yéene màggal laylatul qadri ñoo ngi leen koy dénkuwaat ànd ak di ñaan yàlla mu dolli ñu kàttan ba ñu matal weer wi ak suñu sago te mu nangul ñu ko ak mboole seen jullit ci mbaaxam ak yërmandeem subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته